Gora Sock Fils de Balla dañuy xeex dañuy xeex oh Gora door na Fils de Balla Gora Sock Gora Sock Fils de Balla door na Fils de Balla door na jël na ko Fils de Balla mu ngi door Fils de Balla mu ngi door Fils de Balla Gora Sock Fils de Balla Gora Sock ñaari xale yi Parcelles Guédiawaye Gora Sock Fils de Balla Gora Sock moo ñëwoon ginnaaw Fils de Balla moo ñëwoon kanam ñaari xale yaa ngi ci géew bi jërëjëf Doro Gueye Doro Gueye nuyu naa la Fils de Balla jàpp na ngemb Fils de Balla jàpp na ngeen wéyale na ko Gora Sock Fils de Balla oh Gora Sock Fils de Balla Gora Sock Fils de Balla Gora Sock Fils de Balla eh Gora Sock Fils daan na ko laa ilaaha illallaah waay laa daan na ko wuy sama nday jëli bi rëy na jëli bi rëy na jëli bi nday oh xoolal Balla Gaye xoolal Balla Gaye xoolal Balla Gaye Balla Gaye fu Balla Gaye ngay zibilé. Balla Gaye ngay zibilé. por fin la logra y general a que no. Yo fan